pulmonaire la amoon maanaam xëtër bi moo doon métti fi nooyi gi di jaar bi mu amee sax faju woon na ba ñëpp jàpp nekkat tane na mu delluwaat këram waaye bi mu ko daane laatoo daal daf ko yóbbu moom mii nag amoon na cinquante quatre ans juróom fukki at ak ñeent doomu Italie la moom nag nekkul woon ku ndaw ci mercato bi maanaam ci njënd mi ak njaayum jour yi ndax kat yoroon na fi jour yu bari ay jour yu mag nag ñii may waaja lim yëpp kat moo yoroon seenum njënd ak seenum njaay kii di Erling Haaland Mathias de lirte Marco Verratti Ryan Gravenberch Moiskin Alejandro Romagnoli nekk ca AC Milan Xavi Simons nekk ca Paris Masraoui nekk ca Ajax Amsterdam ak ñeneen ñoo xamante ni kat limu ma leen kon nag du ku ndaw ku mag la woon nag ci football bi rawatina ci mercato bi moom nag génn na àdduna tey jii 1967 la gane si woon àdduna 2022 la génn àdduna kon kii di Mino la génn na àdduna tey jii loolu moo nekkoon vidéo bi ak xibaar bi ñu leen indiloon ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo. incha allah